ginnaaw liggéeyu ma fii dëkku ma fii dëkku ma sax ci quartier bi nii quoi mais dama fi amoon dama fi amoon malade rek indi ko fi ba la jógee dafa damu ci tànk quoi. lan nga ñu a wax ci li bi bon bi muy commencé xamu lu ko taal xamu lu mu tàkkee loolu moom laa xamante bi fekk fekkuma ci affaire yi loolu moom fekkuma fa maam lu ko taal ak na la tàkkee loolu moom xaw ma ko. mais déggoo ci benn information. waaw dégg naa ay coups circulaires ak yooyu noonu après mais loolu wóoruma quoi. Mhm. vingt et une heures vingt et une heures waaw vingt euh, pas vingt et une heures mais mais heure boobu daal moom xam naa moom vingt et une heures jotoon na moom quoi parce que man dix-neuf heures fi doon fekk laa indi sama malade ñu nekk ci affaire yeeg nekk ci waajal dem Thiès ak yooyu noonu bu koy évacuer fii lañ koy defar mooy loolu mu jugee fii ko tabaxee sax euh, daam moo ko tabax ay deux heures du matin mooy loolu daam fii liggéey quoi. scène bi nu mu demee li ma ci mën a expliquer li xam fekkee naa ko ci mooy man fi laa génnee radiologie fii rajo service mi nekk fii bi génnee man ak euh, Malick saar bi génnee man ak moom euh, téye malade bi fekk euh, ak fiche yi rajo yi war ko yóbbul mais dajaay maire Fary ko maire ana am bi mun ma am di dafa dem fële fee dafay tàkk man ko fuy tàkk mun ma fi xale yi nekk man ko ay fee xale yi day ma léegi ma bàyyi malade bi man taw dem bi ma dawee daw bi may yéeg maa ngi fekk maa ngi dajeeg eh, ay femmes ñii di jooy am ñoo xam ne ay maral lañ woon nag ñu ngi woon ci kaw wàcce na leen am ñoo xamante ni bii ñu ngi jooy ci ci personnel médical bi nag blouse blanche quoi maa leen fekk ñu jooy ñii di yuuxu di woote wàllu parce que jigéen lañ courant bi coupé na foofu lëndëm na saxaar si bari na tàng na. ñu fi ñu nekk bon li nga li nga mën a nga nga mooy lan. mooy ñi xam man ñu fa jiitu ñoo am ñoo xam ñoo wàccee malade bi ma ñëwee fekk leen fa jàpp nañ ñu wàccee malade mais après li ci des bon ga euh, a ngay romb gis ñu wekk euh, extincteurs yi nga jël am yoo xam te ne bii doxul quoi amul dara waaw sapeur waaw sapeur moo fi ñëw sapeur ñu ngi leen woo 21 35 après am am di moo leen ko sax ki nga xam moo dajji bunt bi fi xale yi nekkoon ki dajji bunt bi kooku moo leen woo téléphone ni ko sawaay hôpital Tivaouane dafa lakk dafa tàkk ba am na xale yu fi xaatu mu naan ko est-ce nga wax na mu ni ko xale yaa ngi nii faatu ma tiim leen ñu ngi nii dee après bon ñu nu ko waa am problème ñu ngi ñëw après quelque temps ci leen agsi ñoom bi ñu agsee fekk nañ ñu bunt bi dajji bunt bi am di moo këdd bunt bi bunt bi ubbeeku bunt bi ubbeekoo saxaar si gën a bari nag parce que saxaar si dafa concentré woon ci biir donte euh, bâtiment bi takk na saxaar dina génn mais fi nga xamante ne bii fa la fa la fa la nekk dëgg dëgg dëgg fi xam mooy tàkk boo ko ubbee saxaar si day gën a bare ci bâtiment bi bâtiment bi day gën a tàngaat encore lu mu tàngoon benn dina ko tàng fukk ñu dugg bon ngay gis ay chariot jël sa portable nit xëcc xale xëcc benn chariot gis ci xale noonu nga teg sa loxo mu fàtte mu wàññeeku. kon fi xale yi nekkoon kenn nekku fa amul woon benn surveillance. non non fi xale nekkoon noonu nit génnoo fa waaw noonu euh, am garab bi noonu ci biir tëju fa. non amu fa bu fa nekkoon kay moom mooy buntu bi sax. kon dañ leen tëjoon noonu dañ leen tëjoon noonu bàyyi leen ci biir. waaw dañ leen tëjoon parce que mën na nekk ne buntu bi di buntu bi en di buntu bi ñu koy ñu koy tëj ngir euh, sécurité xale yi parce que mën na xale yoo xam matuñu mu ne mën na nekk loolu quoi mën leen ñu bañ ngelaw di leen laal affaire yooyu noonu quoi. ma mën na ko tëj tam wàcc dem am lu mu liggéey ñoo fekk affaire bi déclenché mu doon jigéen voilà mais loolu daal jàngat bi ma ci am daal dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xama rek bon comme que xaw ma nu affaire bi nu mu def ba tàkk fekkewu ma ko man li ma fekke mooy bon secouriste laa ci woon rek ñëw jàpp ci liggéey bi gis ay xale yoo xamante ne bii ñu ngi ci xam nga danger nga war ci jàpp ñu ne ci bon di gën a ñaaxaat état bi ak di ñëwee dañ ñaaxaat personnel bi di gën a ñaaxaat waa hôpital ba ñëpp rek ñu gën a góorgóor rek mais di seedee tamit ni euh, ñi liggéey ci département boobu noonu ay jàmbaar lañu théâtre ña fa nekk ay jàmbaar lañu parce que tamit euh, foo xamante ni bii góor ñi mawul yéeg nga fekk jigéen ci kaw kook jàmbaar la ñu nekk ñu nekkoon foofu nag gannaaw kay ma xam ne affaire de xamuñu ma man ka laaj découragé dëgg-dëgg ka laaj découragé sax bi xëccee am di xëccee benn chariot bi teg loxo bi kooku wàññeeku mu xëccaat benn chariot puri mu mu ci benn kii mu muri benn sër noonu euh, six xale six bébé te du noonu après ñëpp bon mu bon nga xool leen xam ne ñii dee nañ quoi après ci bon man ci man ci laa découragé wàcc xam ni boo fii ñi fi des ñëpp daal pour ñu mucc non dina ma yéem de parce que foofu tàngoor na saxaar si bari na tàngoor na saxaar si bari na Mamadou Mbaye dëkk fii commercial